population yi nga xam ni ñoo nek ci zone riveraine des des ICS dañuy réclamer à ce que ñu indemniser leen ci barème d'indemnisation bo xamanteni ni dañ ci waxtaan ba jubboo li ñu nemmeeku mooy ICS dafa ñew ci population yi nga xamanteni ni la ñom la wara exploiter fofu wara jël sen soufi sans pour autant que nous proposer au moins ben barème d'indemnisation bo xam dina mën compenser compenser euh, li nga xamanteni ñak nañ ko foofu. donc li ñu nemmeeku mooy ICS dafa ñëw bëgg proposer ben barème d'indemnisation bo xamanteni ni c'est vraiment comme nima ko waxé dérisoire et insignifiant lolu mo waral population yi euh, mobilisé wu. ministre de l'intérieur bi ñëw na fi ñaari fan ci ginaaw bi mu ñëwé pour xol si euh, population yi ak entreprise bi nan la démé ginaaw bu mu déglo population yi déglu ICS mom reconnaître na ni barème d'indemnisation bi fayé dafa touti li ICS proposé dafa touti nemmeeku na également que ICS muy entreprise bi nga xamni ne moo fi nekk li mu ak askan wi defuko ci walu jeunesse walu emploi bi emploi des jeunes ci wàllu euh, li nga xamanteni warlo nako na muy responsabilité sociétale des entreprises defu ci dara loolu yëpp reconnaître nako mais le seul point bi nga xamanteni population yi tey lànk nañ ko te ministre bi bëggoon ko ginaaw bi mu fi ñëwé moy population bi bàyyi ñu natt tool yi après ñu doga waxtaan ci barème bu ñuy fayé lolu nak lay rappeler waat à tout le monde que population yi duñu ñu mos nangu di cédé di joxé soufi té te waxuñ ñu barème d'indemnisation bi nga xamni mom lañ leen wara fay té barème bobu comme niñ ni ma ko waxee sànq dañoo bëgg mu nekk barème d'indemnisation bo xamante population yi danañ ci gis seen bop bien vrai que xamnañ ñun li ñuy exploité ci suuf yooyu ICS mënuñu ko fay mais ñun bañu ñu joxé suuf mais li ñu bëgg moy ku ñu récla ku ñu indemniser barème boo xamante population yi fa nek té impacté té ñu leen impacté dañ ci gis seen bop parce que dañoo wara ndangu nangu seen suuf. dañoo nemmeeku ni ICS dafa commencé di menacer population yi nga xamni mom lay jox ndox ni day couper seen ndox jot nako couper pendant comme niko ki waxé waxee 1 heure 2 heures de temps bi population yi wàccee ci terrain bi def marche ci lañ doog indi indiwaat ndox mi mais dans tous les cas ñi nga xamal ñepp que ndox bi nga xamanteni mom moom la population yi di dundé bu ko ICS coupé population bi den wacc liggéeyam dañ ko gàllankoor loolu moom fa ñu nekkoon démb foofu la ñu nekkaat ba